waxtaanu sëriñ Moustapha si bi mu def léegi dégg ngeen fi mu tàmbalee mu ko tàmbalee ca kaw yàlla yonent yi mu yónni li tax mu tànn leen jox leen cër kenn ku nekk contexte ba mu la yónnee ak la mu la yónni di wàcc ba ci ñi mu xam ne ñoom la tuddee awliyaaw indi ñi nga xam ne ñoom la tuddee xutbu indi aqtaab yi ni wax kenn ku ci nekk sa cër ci biir loolu mu ngi ànd ak ay xadiis yoo xam ne tudd ko waaye def ko firi ci wolof mu ngi ànd ak ay ay alquran yoo xam ne mooy leeral yoonam ba mu yegg si waaye li ci gën a doy waar ma ñibbisee 2003 2004 ñu invité ma fii ci benn conférence bu mu doon def ma toog di ko déglu ba mu jeex ci gannaaw ëllëg sa ma dajeeg sëriñ Abdou Tiwaawoon al amin ne ko man nag am na li ma gëj ci réew mi ak daan dem ak dellu waaye am naa beneen mbetteel mu ne ma lan la mu ne ko dafa am lu ma seetlu ci xale yi mu ne ma lan la mbaa jàmm la ma ne ko dama daan déglu sëñ Babacar radiallahu taala anhu muy wax ak doomu soxna yi di santaane di dimbali doomu soxna yi ci biir wax ji di tegtale di tette di guider sëñ Babacar nag bu tàmbaleen wax ci njëlbeen ga ba ca mujj ga maanaam ci commencement bi ba ca fin ba dafa am loolu ñu tuddee concordance tansiq du am lu ko dogale fa mu tàmbalee ba fa mu yem dafay ànd ak tansiq tamaam ma gis na sama génération bien que mag yow ñoo daan tëralu ak Ousseynou Diène ci góor gi Alioune Guèye ndax man la bàyyi say batu mujj a dàq ci xale yi ñu dem ci góor gi Alioune Guèye waaye suñu toogaan di jàngale buy séenee góor gi di ñëw rek ñoo xam ne soxla nañ Sëriñ Abdou te góor gi mag rek moo ko soxla waaye ma siis rek moo ñëw nag góor gi ma siis bu yegsee rek góor gi Alioune Guèye da nga xanaa waaw ba subaak jàmm bokk ba subaak jàmm su ko defee seen Sëriñ Abdou jóg dem ndax responsabilité yi ma ne dama gis ñun yéen ku ci commencé wax wax ji du yegg nga dugg feneen waaye mustafa fi mu tàmbalee ba fi mu yegg moom rek moo ci roy sëñ Babacar waaw yéen fu ngeen nekkoon yéen nekkoon mu ne ma ah yow da nga may attaqué ba ne ko déet du loolu dama gis mustafa xale bu ndaw la fekkewul ci jamono suñ Babacar waaye dama gis bu tàmbalee bind li muy bind di ko wax ci njëlbeen nga ba ca mujj ga dafay am concordance logique ba day dëppoo ak loolu ñuy tuddee ña waxal pour ñu mën koo dégg pour mën a communiquer ak ñoom yéen seetlu ngeen yéen ñi toogoon di déglu Moustapha bi mu indi yonent yi indi aqtaab yi indi awliyaa yi indi ñëpp seen cër bëgg nag indi place su sëñ Babacar gis ngeen ni mu ko indee te heurtéwul kenn ci yéen lu dul rek ñële nga xam ne ñoo fi war a dundal xolu nit ñi ñoo jokk yëngu ba dina yëpp tàng mooy woykat yi ngeen gis Moustapha di dem di dem ba ci mujj gi mu indi leen loo xam ne nag mooy réalité yoo xam ne buñ fi toogatee juróomi at fukki at ci kanam ak soppeeku dana am soppeeku googu la Moustapha bañ nag mu bett ñu mu ne commencé ko nag ci ndaw ñi ndax jamono dafay dox moo tax mu indi leen li mu leen indil ne yéen ñi nga xam ne yéen a commencé internet bi dugal ko ci daayira yi di ko dimbalee mag ñi di ko dimbalee tarixa bi di ko dimbalee kër gi di ko dimbalee diine ji di ko dimbalee bokk gi na ngeen continuer te dollu ci leneen ñu ngi leen di encouragé ndax mag ñi bëgg Euh, mag ñi am na mel ni am na lu xew ci rajo bi de mag ñi bëgg nañoo am lii te yàlla dogaloo ko waaye yéen ngeen andi ko dafa bëgg nag yi mu tudd léegi ci mujj waxtaanam ngeen bàyyi ci xel naqarik jamono mettit wu nit ñi di jànkuwanteel réew mu bari mettit dafa bëgg kenn ku nekk fagaru ndax ak soppeeku day am ak soppeeku day am xëy na yéen gisoon ngeen démb walla déggoon ngeen démb mag ñu bari gox boo jóg gox boo fi tudd ci Sénégal koñ boo fi tudd ci Sénégal région boo fi tudd ci Sénégal mag jóge na fa fekki Alaaji Malik ñii bi ñu ñëw dañuy indiwaale satala mu doyal leen ñii indi bidon mu doyal leen ñii indi xandi mu doyal leen ñii indi siwo mu doyal leen ñii indi beñuwaar mu doyal leen ñii indi barigo mu doyal leen ñii indi mbuus ñu doyal leen bu ngeen seetee fi mu nekk nag mboolem ko alaji malik doyaloon li ci ëpp yaa ngi woote nag forage Kayoor ci sa kër kenn ku nekk yaa ngi woote ne forage nga ci sa kër loolu la Moustapha junju pour ngeen bàyyi ci xel taxaw taxawul ndono li ndono li soo ko taxawul yow mu ci bokk keneen du la ko taxawul ndax keneen a ngi taxawul leneen ngir far ndono li keneen mu ngi taxawul leneen yow ndono li nga am ndono li boo ko sàgganee jamono dox di nga dem ba dootoo am foo bay di dem kon loolu ñu tuddee m euh, petite moyenne entreprise ME MEI yooñu doo tey dafay nekk yeneen lexeer yeneen loxo danañu dem ba université yi faculté boo dem benn nga fay fekk danañu dem ba hôpitaux yi clinique yi médecin yi boo ne fukk kenn ngay am yooyu la mu Moustapha junju pour ngeen bàyyi ci xel man nag dama lañ koy tojal daf ko junj ngeen bàyyi xel ci loolu ndax boo demee ba terre agricole ñu nangu ko ci sa loxo l'industrie ñu nangu ko ci sa loxo les finances ñu nangu ko ci sa loxo l'économie ñu nangu ko ci sa loxo culture bi nga doon wootee démb ak barke démb ñu ñëw ba dab la waaw foo jëm kon foo jëm voilà lii la Moustapha wax nag mooy discours bi mu wax ko xale yi na xale yi gën a taxaw Moustapha nag làmmiñ ñu mag lay waxee beneen point bi ma bëgg a wax mooy dafa wax ne dafa laaj Serigne Abdou Al Amin ñoom seen génération ak ñi leen jiitu ñenn ci gën a bëgg sëñ Babacar danaa leen nettali rek lu xew semaine bii ñu génn bi ñu gàmmoo ba pare xaw naa yàgg Tiwaawoon waaye dama fa jógee dem Saalum doon seet mag ñooñu nga xam ne ñu ngi ajoon ci Alaaji Mali di wër Saalum maa ngi ànd ak ay nit génn jëm ci jàkk ji benn xale boo xam ne juróom-ñetti at wala juróom-ñeenti at la war a am mu ñëw nuyu ma ne ma ma Mansour ma ne ko waaw munu dama bëgg xaalis ma ne ko la day xaalis bi munu ma dama ko soxla ah ma ne ko li nga soxla nu mu toll mu tudd ma ko man ne ko aw ma weccet de mu ne ma barke sëñ Babacar yaa ngi xaalis ma ne ko yow la xamal sëñ Babacar yow sa ndey sax gisul sëñ wala juróom-ñeenti la am mu ma barke sëñ Babacar yaa ngi xaalis ma ne ko waa yow sa yaay gisul sëñ Babacar loolu xamal sëñ Babacar xam nga lu ma wax mu ne ma gën loo ma gëm sëñ Babacar ma làmb sama poos lam ma laajoon ma jox ko lu ko ëpp fukki yoon ne ko ma dem ñu dem kon xaw ma ndax ànd naag euh, moom ci li mu wax wala ànd naag yow am na ko toog ci jataay bi ñu di ko wax Sey Njaay ci daayira bi la bokk baayam at mi sëñ kër génne àdduna ci la juddu baayam laa wax de soxna na fi doy mi toogoon fii la doon liggéeyal waaye mu bokk ci daayira bi mu ne man daal Pa dama bëggoon ko xam ne sëñ kar moo la may wirde mu may ma wirde ma ne ko yow dama lay boolee sëriñ Abdou mu ne ma xée bab sëriñ Abdou su ma may wirde kon yegg na yàlla dogal sëriñ Abdou ñëw fa ba génn ma ne ko nag am na fi koo xam ne baayam bi muy juddoo 1957 ci la sëñ Babacar génn àdduna te ci la juddu moo jur nag xale bu jigéen bii ne dafa bëgg ko may salaatul fatiha sëñ Abdou dem wool moo ko ma woo ko mu ñëw may ko daf ko may salaatul fatiha rek mu daan du jooy mu ngi toog fii defe na ñu ci mbooloo bi de ñoom xalifa Njaay xam nañu euh, loolu sedda ci li nga wax léegi gis nga ñi mujj juddu te xamuñu sëñ Babacar ñoo gën a gëm sëriñ Babacar ñi mujj juddu xamuñu ko sax ñi mujj juddu ñoo la gën a gëm yonent bi te gisuñu yonent bi xamuñu ko ñi mujj la gën a gëm yonent bi gisuñu ko xamuñu ko loolu nag ci biir waxtaan wi gis ngeen xam nga booy wax ci xam-xam toujours ñaare académicien toujours ñaare ñaare buy wax bu demee ba yëg ne nit ñi ñu ngi xaw a kii moo taxoon mustafa dugal ci affaire timpi tampa pour yee leen rek du dara. day def ci dugg rek pour yee leen kooku ay bàyyam na doon na foofu nag bàyyam Cheikh Tidiane bàyyam Abdou Aziz ak maamam Abdou Aziz Dabakh ak maamam sama turandoo ñooñu la ñooñu la gis nga boo waxeek mbooloo ñu dema dem ba xaw a kii nga dugal ci dara rek su ko defee ñu waaw ñu yeew loolu taxam indi timpi tàmp waaye du du boobu caractère moom yooyu du yitteem sax daf ko ci dugal rek pour bëgg a yee nit ñi waaw kooku fokk ma laalaat ko ci ndax comme ci yëf yi la bokk te xam naa yëf yi ni muy dawee gën a gërëm nag ñoom Moustapha mi nga xam ne dafa ba léegi mu ngi ànd ak ñoom di leen encouragé di leen taxaw gën a sant itam xalifa ak ñi mu àndal di leen gën a encouragé ci wax ju rafet yi ñuy wax fii ak seen taxawaay ak itam sëriñ Moustapha ni nga sante jigéen ñi nga gën leen a encouragé ndax yëg naa ne Mansour mbay mu ngi taxaw lool ci seen àlluwa ndax moo tax def naa ne moor Bint Si wala ki mbër ak Ousmane ñu ngi ci lool di leen dimbali ci seen wàllu àlluwa ndax bu ñu génnee ëllëg kenn bañ leen a jam euh, nga gën leen a ñaanal côté boobu gën leen a ñaax gën leen a sant xalifa euh, nag yàlla moom moom euh, maa ko jur ci ndey maa ko jur ci baay waaw ndeysaan yàlla na yàlla gën a taxaw yàlla ko yàlla gën a jàppale ñoom ñëpp yàlla na yàlla gën a taxaw ci barke yonent bi waaye li nga wax léegi ba nga tëjee ko sëñ Babacar daf daan wax ni ayuhal mu'ridu anna in iraadaka minna law araadnaaka jaalna kulla ma fika yuridna nee na ki génn ci xadara bi dañ ko sempi ni weñ ci soow sànni waaye bàyyul boppam dañ ko génne xadara bi nag ku ci bokk nag borom moo ci boole yal yàlla boole ci xadara bi yal nu yàlla boole ci xadara bi yal yàlla boole ci xadara bi moom nag moo daan wax ne moom day tëje sama wax ku am lu jafe jëlee ko fu jafe ci waxtu wu jafe ala kulli xaalin ala kulli xaalin mooy quel que soit ala kulli xaalin ak lu mën a xew danga war a jafe nii la ko daan waxee de ku am lu jafe jëlee ko fu jafe ci waxtu wu jafe ala kulli xaalin da nga war a jafe ku am lu mel ni Malick mii tëdd fii ak ni mu jafe ak waxtu ngeen ko amee bu ngeen yombee rek ñu fooye leen yéen itam bu ngeen yombee rek ñu fooy leen da ngeen fexe rek ba ànd ak seen dignité seen diine seen ngor ak ni leen ko suñ Babacar dénk woon seen tarixa seen daayira seen diine seen métier seen yoonu Tiwaawoon da ngeen fexe ba jàpp ci yooyu bu leen ko dara yàqal bu ko kenn yàqal bu leen ko dara dara yàqal bu leen ko kenn kenn yàqal sëriñ Babacar bu daan dénk doomu soxna yi ñi daan wut tiru yàlla di ko liggéey daf leen daan wax ne turu yàlla wu ñu jëlee fañ ko war a jëlee doxale ko fa mu war a jaar ba mu yegg fa mu war a jëm xajul ci dara xajul ci kenn xajul ci lenn ak lenn ja nu mu mën a toll kenn ka nu mu mën a toll dara ja du ma mën a toll wasalaamualeykum wa rahmatullah